mineur laa te man liggéey laa ko doon ñaan wala te man dama ko ñaan pour mu tukkil wala man dama ko ñaan pour mu defal ma lii mais non on va dire non c'est des victimes aussi oui c'est des victimes mais c'est des victimes qui aussi elles sont elles sont rentrées dans dans dans, dans un fleuve où il y avait des caïmans un fleuve y avait des caïmans un fleuve boo xam ne man mii à 29 ans bu ma fa duggee dañ may lekk à 29 ans on se fait manger encore moi une fille de 16 ans donc voilà quoi loolu laa bëgg wax pour toutes les personnes qui sont en train de dire ouais tu fais l'apologie nanani nanana franchement da ngeen ma yeb ku ma xam xam ne man jigéen lépp lu mu am lu ko metti ci àdduna dama ko même ces fii de 16 ans là tey buñ ne bu ma leen xamoon damay toog yedd leen ànd ak ñoom ba ñu génne ci loolu ba pare mais en même temps nañu wax ak suñuy rakk yi nañu personne n'est parfait moi à 29 ans je suis pas parfaite mais quand même j'ai eu j'ai atteint l'âge mais à 16 ans man xalaatuma woon xalaatuma woon xamanteeg ministre ministre dama koy gis di ko dégg duma ko gis duma ko xam du ma yor numéro bay dem ak ministre mu may invité rien wala mu may tëddee wala mu may mais il faut arrêter les gars il faut arrêter on est en train d'encourager ces filles là et loolu laay loolu laa doon wax Mamiko elle a pas voulu m'écouter Mamiko c'est une fille boo xam ne guerre bu jigéen bu ne dugg ànd naa ak yow c'est une fille que j'ai j'estime beaucoup j'ai beaucoup d'estime pour elle parce que souvent xeex bu amee moom bokk na ci ñu koy njëkk wax mais pour une fois Mamiko tu peux pas me dire non on doit les écouter on doit les écouter mais en même temps nañ leen delloo seen place ne leen yow xale bu ndaw bii waroo woon sax sekk ak waa ji wax ak moom ba mu naan la ñëwal ma sekk ak yow lii ba pare soog a def ak yow lii on est en train de diviser le débat on est en le débat c'est ces filles-là qui ont été violées ces filles-là qui ont été utilisées ces filles-là boo xam ne dañ demoon pour mis Sénégal kese de base oh ki ma saaga ndey saaga nga ku baax saaga nga ku vulgaire <laughs> kii ma saaga ndey saaga na ku mën a saaga oh ndeysaan message ma ko inbox ma tontu la donc je vais continuer ces gens-là on ne leur dit pas mi yow lu tax boole woo lu tax boolewoo bañ la yoon bañ la bañ ba la nit ki neewee kaay ñu def lii lu tax boolewoo mais nga dem def mu lay def nga yaakaar mu lay def nga yaakaar mu lay def nga yaakaar mu lay def nga yaakaar ba mu sànni la nga ñëw bëgg victimiser wu ah mais attends on est dans quel pays ça c'est pas des victimes de viol c'est des mineurs certes Là, il attention a atteinte sur mineur, parce que quelqu'un a dû avoir des relations sexuelles avec une fille qui est mineure. Mais ça n'a rien à voir avec le viol. Ça n'a rien à voir avec le viol. Sénégal nañ delloo débat bi fu mu toll buñ jël rek xam nga dañuy jël benn affaire ñun ñëpp bëgg kii rek rek rek kii commencé kii fekk ne du loolu du loolu mooy régler problème du loolu mooy régler problème tout le monde tout le monde veut faire comme si man maa gën a bëgg xeex bi comme si Ça fait mal à tout le monde. Ça fait mal à tout le monde, cette histoire. Ces filles qui ont été... Cette, cette, cette, cette miss-là qui a été violée, moi, ça m'a fait mal. dama toog fii ma dëkk bi ma nekk j'ai dit mais putain mais Sénégal naka lañ mën a violer miss naka lañ mën a nii naka lañ mën a nii et puis ñii ñëpp di jël guerre di ko def comme si guerre la c'est les mêmes qui ont insulté cette si elle a pas osé parler depuis longtemps c'est parce que ñun ci suñu bopp ñun ñoo ko doon xas naan ko da nga ñaaw da nga nii da nga nii da nii ba mu tëj gémminam ba tey tey mu ñëw di wax ok gars yi ànd ak moom ñëpp mais ngeen bëgg problème boobu noonu ngeen ngeen dugal ko ci beneen beneen contexte maanaam xale yi nga xam ne ñoom dem nañ taxawaalu ba pare ñu taxawaalu leen ñu taxawaalu ñu sànni leen ñu bëgg a ñëw victimiser wu non je suis pas d'accord xale yooyu su leen fompalee seen rongoñ ba pare damay toog ne leen eh yow li nga lan moo la war a yóbbu ba nga dem wax nit ku mag lan moo la war a yóbbu ba nga dem di waxtaan ak nit koo xam ne moo moo sa moroomu baay ba mu lay proposer tëddee la ba nga nangu pour mu jox la benn poste walla pour mu may la dara c'est ça qui devrait être la question c'est ça en fait la question mais du ngeen nangu parce que xam lan mooy problème mu sénégalais ñun on ne règle pas les problèmes des gens on fait semblant cette fii là euh, la Miss Sénégal de 2020 on va l'oublier su ma leen ko waxee gis ngeen ñi nar a jàpp combat bi ba gel bi am justice du bëri parce que cas moo leen neex sénégalais xam lan moo ko neex am lu bees ci li mu wax sénégalais xam lan moo ko neex am lu lu ko leer ci benn problème boo xam ne moom bu ko leeree ba pare day jël juwam teg ataayam naan non c'est que cas bi nii la demee woon ce qui vous intéresse pas ce qui vous intéresse c'est pas la guerre de cette fille c'est seen ay cas je je me dis la vérité regarde la preuve tout de suite je vais on m'identifie sur un truc ay groupe Facebook une fille qui parle de moi qu'est-ce que je m'en fous de cette fille man parce que xam naa man may kan te xam naa li ma bëgg ci jigéen jigéen waxuma la samay rakk de mais jigéen ñëpp ñëpp ñëpp parce que j'ai des sœurs je suis une femme j'ai vécu des trucs qui m'ont fait mal j'ai vécu des injustices dans ma vie donc je ne peux pas accepter qu'une autre femme di di dund loolu mais pourquoi ngeen bëgg a jël cas boobu boole ko cas dafa mel ni man Korka ma jug tey kenn ñëw proposé ma xaalis def ma lu ko neex ma jàpp ne il va il va il me promet monts et merveilles joxatuma ko ma génn di victimiser wu non je suis pas une victime je suis une personne qui a voulu une vie de rêve et qui est tombée sur des caïmans et ces caïmans là ils te c'est ça le monde le Sénégal l'Europe l'Asie partout c'est ça le monde à 16 ans lan nga wax 16 ans man ba may am faru 16 ans faru lan la faru école bu ñu jugee ànd dem jël car dem jëndi glace far boobu far bu la jëndaloon glace à 16 ans pour yow jëndal na la àdduna ak li si biir mais aujourd'hui une fille de 16 ans peut pas venir dire vraiment et que vous acceptez ça et que vous me prenez pour la fille folle que vous acceptez cette situation la et que vous disiez non c'est une victime c'est une victime certes parce que mineur la mais mineur bu waw bët la parce que mineur buy dem bay toog ak ministre mineur buy dem bay toog ak député mineur buy dem bay toog ak journaliste bu mag quand même à 16 ans c'est un enfant am naa ko ma gis mu ne à 16 ans c'est un enfant et un enfant doit faire des trucs d'enfant un enfant ça je sais pas si c'est moi je vis dans un autre monde ou c'est c'est les gens qui sont en train de défendre fi fille qui qui qui qui qui qui, qui résonne dans un sens où man mënuma ko comprendre Fatima, je n'ai jamais dit que ça ce n'est pas une victime. C'est une victime, certes, mais ce n'est pas une victime de viol ou de proxénétisme. En fait, c'est une fille qui rentre, je répète mes, mes mots, c'est une fille de 16 ans qui va coucher avec un ministre ou avec un député parce qu'il lui a promis de lui donner du travail. Tu sais où elle aurait dû dénoncer xam fan la waroon dénoncer biñ ko ne buutal ma liggéey mu ne ko euh, non, tu vas coucher avec moi pour que je te fasse ça, pour que je te trouve du travail. Là, elle aurait dû dénoncer. C'est ça la réaction d'un enfant. C'est ça la réaction d'un enfant. Je suis désolée. Mais un enfant qui veut vivre une vie d'adulte, ça dit tu as 16 ans, mais tu veux vivre une vie d'adulte, on te propose ça, tu acceptes. On te propose ça, tu acceptes. Donc voilà, maintenant, ceux qui ne partagent pas mon avis, sama position dama ciy toog ngeen mer ngeen wax ngeen bind seen groupe yeeg seen sama position je ne vais pas bouger te ñii di saaga vraiment oh saaga ngeen ku réew yéen a ngi saaga ku réew vraiment ku mën a saaga mais je respecte ces Sénégalais qui sont sur le live et qui ont du respect pour moi je ne vais pas insulter mais par contre je répète dire qu'une fille de 16 ans qui a accepté de coucher avec un mec pour avoir un travail, c'est une victime. C'est une victime, certes, mais encore, c'est une victime qui a voulu vivre une vie de grande fille. Elle a voulu vivre une vie de grande fille. Une petite fille, à 16 ans même, même si sa njabot, même si sa famille, dañu am dañu ñàkk xaalis waruñu waroo jaay sa à 16 ans vraiment pour pour liggéey Après, euh, tout le monde dit non, c'est l'apologie du viol. Elle n'a pas été violée, elle était consentante. Elle était consentante quand elle faisait ça. Maintenant, ouais, dit peut-être joxu ko lim ko wara jox yépp. Mu ne boy, euh, moi aussi j'ai été victime. T'as pas été victime, c'est pas le même cas que la fille, que la Miss de 2020. C'est pas le même cas. C'est pas le même cas, je suis désolée. C'est pas le même cas. Cette fille, elle a voulu vivre une vie de pacha, elle en a payé les conséquences. Maintenant, Elle est mineure, elle doit aller porter plainte parce qu'elle a, elle a eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui est plus âgé qu'elle. <laughs> Mais elle l'a voulu, hein. Elle l'a voulu. Donc voilà, ceux qui écrivent euh, des trucs, je l'ai vite fait parce que franchement... Euh, elle dit que je rejoins les propos de Amina. <laughs> Je suis désolée. Amina, elle a dit que nous violons C'est ce qu'elle a dit. Et ça, j'ai même écrit un post sur ça. Je l'ai insulté. Mais ce que je dis, c'est qu'une fille, je répète, parce que yéen moom da ngeen di jël dara ngeen mixé ko def ko seen smoothie naanee ko nu leen neex fekk nit ki moom smoothie fraise dong la defoon ngeen defal ko ci pomme banane ak lu leen neex ngeen taaj ko ci dëkk bi man kenn du ma taaj je répète pour ñuy enregistrer pour ñuy yóbbu wax ce que j'ai dit c'est qu'une fille de 16 ans est rentrée dans le live de Mamiko qu'elle a eu des relations sexuelles avec un mec parce qu'il lui a promis du travail moom dafa tëdd ak waa ji parce que waa ji dafa bëggoo daf ko ne boo tëddeek man ma jox la liggéey moom mu nangu ko quelle manipulation moo fi nekk bonne manipulation moo fi nekk je suis désolée les vous êtes en train de faire croire à nos sœurs loolu c'est normal vous êtes en train de faire croire aux petites qui regardent ce live là que suba bu la kenn proposé loolu noonu nga def ko yow tu n'as rien fait c'est juste que tu, tu, tu as été manipulé non on on devrait plus dire à nos petites sœurs écoute bu la nit ñëwee proposer une proposition indécente demal nga boole ko police c'est ce qu'on doit dire à nos petites sœurs mais pas non comme xew na ba pare yow victime nga elle est victime j'ai jamais dit qu'elle a pas été victime mais <laughs> elle a été victime de quelque chose parce qu'elle voyait de l'or dedans tey bu ci xale bi jotoon lim ci waroon jot yëpp ngeen foog dina génn fii wax ngeen foog dina génn fii wax duñu génn fii wax duñ fi génn wax bu ñu amoon li ñu bëgg duñ fi génn wax donc elle a fait pendant des années ou des mois waa ji li mu bëgg yëpp tey comme on parle du cas de Miss Sénégal qui a été violée elle elle veut dire que elle victime de viol c'est pas un viol c'est toi-même t'as dit que t'avais accepté c'est toi-même t'as dit que t'as accepté parce que da nga ci bëggoon lii y a une autre qui dit euh, moom journaliste benn journaliste ba mu jox ko ay fo caméra mu tourné mais bëgg bëgg liggéey jar na lool man bi may dugg Evenport dama dama dama joxe man sama dara ba may liggéey fenn dama joxe sama dara à 17 ans j'ai commencé à travailler à la nostalgie aw ma fa far aw ma fa ku ma fonanteel kenn téyewu ma sama liggéey moom fa dama ñëw posté comme une personne normale quand ils ont voulu me prendre ils m'ont pris pourtant joxewu ma sama dara donc vous normalisez le fait que les petites filles elles sont en train d'échanger à 16 ans elles savent échanger et on normalise ça un échange c'est-à-dire une petite fille qui accepte un échange et on normalise ça ah ouais franchement c'est bien li ñuy wax Sénégal ñi fa ñi fa amul xel moo ëpp ñi fa am xel c'est vrai et je suis d'accord parce que ces gens qui sont là qui sont en train de défendre cette fille là demain c'est une petite sœur ça veut dire si elle va demain coucher avec quelqu'un pour avoir du travail donc seen petite sœur moom deful dara elle a fait quelque chose parce que moo ko nangu violé wuñu ko de bu woon gel bi am 16 ans bu duggoon ci live bi ne man dañ ko violé j'allais jamais j'allais jamais parler comme ça mais on l'a pas violée. Elle-même, elle a dit qu'elle a été consentante parce qu'elle espérait quelque chose derrière. À 16 ans, une fille de 16 ans réfléchit en mode échange. À 16 ans, vous vous rendez compte? Est-ce que déjà on, on se rend compte de du, du, du vice que cette petite fille a dû avoir? man 16 ans boo ñëwee ne ma kooka lii damay daw wax ko sama yaay baa wax ko samay copine ne leen kii daf ma bëggoon def lii parce que nee na biñ nekkee xale y des gens quand on était petite ils venaient ils te disent euh, am tàngal jéem la yóbbu ci benn koñ est-ce que da nga leen di topp toppoo leen parce que xam nga ne tàngal boobu mu lay may na la nañ dem ci koñ bi dafa am lu mu la bëgg def doo ko topp pourtant tu cinq six ans mais à seize ans tu ne peux pas dire non tu ne pas dire non tu as accepté et après tu veux qu'on te mette dans la catégorie des gens qu'on a violés. Ma soeur, on t'a pas violé. On t'a pas violé. J'ai pas compris.